Eh, jërëjëf eh, dañ leen di remercier bu baax a baax ci teewaay bi ndax détail bi ñu koy dox eh, xawoon na jàmm mais ne ci dox ëpp na li nekk fii waaye dinañu xool naka la koy euh, d'abord par rapport ak ñi nga xam ne ils n'ont pas eu la chance en tout cas d'être là wala l'occasion d'être là li am solo rek mooy euh, euh, wane ne nous sommes reconnaissants ci li nga xam ne def ngeen ko te bi ngeen koy def c'était pas évident comme ni ko Ibrahima waxee ça veut dire que dafa am benn idéal bu ngeen gëmoon loolu duma ci sori ndax euh, dinaa bàyyi le président de PASTEF mu ñëw ci mais daal euh, dañ leen di remercier parce que man dama jàpp ne ci parti bi man ngeen gën a liggéeyal en tant que chargé de communication donc li ngeen doon def xëy na maa ci gën a profité moo tax je tenais particulièrement à vous euh, en tout cas toute ma reconnaissance mais à vous remercier aussi donc di leen dalal di leen bàyyi nag ak euh, euh, xam naa ne ki nga xam ne moo tax euh, ñu way xam naa bu doon mën ak Abbas moom dañu bëri ay chanteur quoi <laughs> jërë ngeen jëf. merci beaucoup El Mali je dégg naa am nga chanson yu bëri waaye riiti daara jolof yi. <laughs> ñu ngi leen di gërëm di leen sant ehm, di rafetlu jotaay bi. donc di leen di leen remercier bu a ci teewaay bi danoon wax mbirum présentation mais defe naa def naa kenn ko ci ñoom ehm, xam nañ leen ci seen production peut-être moins ci image Eh, di leen eh, jaajëfal di am mbégte ci dalal leen dalal bi waroon na am bu yàgg ndax alaaji Malick bii defe naa bi ñu génnee ci élection yi une semaine plus tard laa ko ne eh, utal ma numéro l' ensemble des artistes yi nga xam ne jot nañ produire quelque chose pour ñu giseek ñoom ça n'a pas pu se faire malheureusement ci période boobu ci diggante bi nag mbirum gouvernement da dab ñu ba tey la ko yàlla tudd rencontre bii nag euh, du ma ne c'est une première du genre parce que jot naa dalal fii il y a quelques jours euh, ñenn ci ñi nga xam ne ay xale yi ñu jotoon a jàpp la euh, tëjoon leen ak ñi nga xam ne peut-être am nañu ay tolof tolof ci seen yaram. crois que ça fait une quinzaine de jours wala maximum trois semaines dalal naa leen fii ñu waxtaan lu jiitu loolu dalal naa fii waa sécurité bi nga xam ne kenn umpalewul seen taxawaay ci suñu wet depuis des années et des années ci conditions yu métti métti métti dalal naa leen fii ñu waxtaan euh, génnoon naa beneen samedi eh, su may wax activité yooyu dafa fekk mu doon activité yoo xam ne dañ leen dérouler ci cadre politique ci cadre parti bi et non pas ci cadre état bi parce que baax na ñu mën a euh, ràññetle ñaar yi parce que yàqkat yi dañuy bëgg a entretenir la confusion nous on a fait des options depuis très longtemps xam nañu lan mooy état xam nañu lan mooy cëram bu ñuy jëf ci cadre état xam nañu lan mooy réglementation bi ñu yem ci loolu bu ñu paree ci loolu boo war a dem defi suñuy politique donte loolu lu nit ñi tàmm fii dañuy summi mbirum état teg ko fële dem def suñu mbirum politique et c'est pourquoi recevoir ma leen primature mënoon naa ko waaye defuma ko activité yi activité politique la ci cadre parti politique Pastef bi nga xam ne man maay président bi El Malick mii nekk ci bureau politique bi chargé la communication Abbas Fall mi nekk ci bureau politique bi chargé de l'organisation bu doon dañuy jëf ci cadre état bi loolu mbirum président Bassirou Diomaye fay la man may simplement le premier ministre donc ñaar yooyu il faut ñu différencier ko donc c'est pas le premier ministre qui vous accueille aujourd'hui c'est le président de Pastef les Patriotes donte yàlla def na ñu dox ba ñaar yooyu am fu mu daje ci jën mais il faut que toujours ñu koy ràññee solos rencontre bi du rekk ñëw pour remercier leen wala féliciter leen souvent peut-être le terme de remerciement sax mën na bañ a approprié ndax ñu bu ñuy dugg ci politique dañoo woote patriotisme gëm suñu réew xeex ngir réew mi joxe suñu bopp ngir réew mi bañ koy door lu tuuti lañu woon ci lim daanaka ñu ne fii yépp autour de la table kenn fekkewul bañ koy door y compris ñii nga xam ne yàgg nañ ci parti bi lu tuuti woon la ci lim matuñu woon dix personnes ñu sumb ko gëm ko tamit suñu yàlla may ñuy dox di dox di dox di wax ak sénégalais yi ay nit di ci gis seen bopp di ñëw di yokk di yokk ci mbir mi ba tey ñu am majorité ci Sénégal dañuy dellu sant yàlla waaye fàttali ni kenn ku nekk ku ñëw rejoindre projet bi rek bul musa fàtte ba ngay ñëw du suusal bu ñu la fi diggoon du mburaake bu ñu la fi diggoon te mosuñu wax kenn ñëw leen ñu dem xeex bu ñu gañee daal di séddoo réew mi suñu discours sa a toujours été constant patriotisme la ñu woote te patriotisme nag la xew yépp am na solo waaye tey la patriotisme di commencer xam ngeen bi yonent bi ay salaam ne jóge nañ ci jihad bu ndaw ña ngay dem ci jihad bu mag ñëpp dañ ne woon kii li muy wax ni nit ñi xeex fii ay xare ay bakkan rot fi ay nit gaañu fi nee na boobu mooy yoon bu ndaw bi parce que bi mu demee ba yàlla jox ko léegi lenge yi boobu la xam ni défi bi foofu la commencé la ca des yëpp échauffement la woon défi baa ngi doog a commencé li tax défi bi door a commencé mooy li ñu diglanteeg Sénégalais yi taalaa kulli xaal dañ ko def incha allah muy benn waaye ñëpp xam nañ ni li tax ñu mën ko def xeex bu rëy la ñaareel bi mooy nguur dafa ànd ak tentation nit dina taxaw tey bëgg laa laaj loo xam ne xelam xalaatul woon mu laaj la ko démb lan moo tax parce que jàpp na ni fi mu toll nii euh, war ngaa diis te fekk tey nga gën a oyof nag. bu dee rek da nga yor te jaarale ko ci yoon moo tax liggéey bi dëgg-dëgg mu ngi door kon daje bi du rek pour ne ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di remercier parce que liggéey bi am na solo te production artistique dafa dafa mën na yóbbu mbir fu ko leneen mënul yóbbu dafa am solo kenn ku ne ci yéen mënul xam. li mu jot a produire moom ban impact la am ci liggéey bi parce que am na koo xam ne peut-être discours Ousmane Sonko sax du ko déglu wala su koy déglu du ci comprendre dara waaye bu gisee kenn ci yéen taxaw jaareel ko ci beneen yoon ci lay gën a am attention pour déglu loolu dafa am solo ci liggéey bi moo tax seen contribution. Euh, apprécier nañ ko à sa juste valeur ñu leen ciy félicité bu baax parce que it kenn ku ne ci yéen bi muy jël engagement am amaana am na fu gënoon a tooy foofu su fa demoon poosam dina diis lool lool lool ci jamono joo xam ne ñun suñu dara leeruloon bëri na loo xam ne am na fii ñoo xam ne 2017 la ñu génne seen clip suñu premier élection législative kenn xamuñu woon maa ngi fàttaliku lan eh, eh, ñi woy son neexu lanam dëggu Mike waaw ñoom ñoo njëkk a génne defe na 2017 ak eh, beneen son boo xam ne Casamance la buñ daan def suñu campagne yor suñu pick boobu yooyu lañ ci daan teg loolu yàgg na ba ñu génnee te jamono bi ñuy génnee man ak président Diomaye ña fii tëdd à côté daan après laa doon gis yu bëree bëree bëri bëri te xaw leen xamuñu ma loolu c'est très appréciable te xam naa ni benn bu nekk benn bu nekk ci li ñu produire am na impact bu mu am ci mbir kon ñu ngi leen ciy félicité bu baax waaye loolu mooy li gën a tuuti ci li tax ma ne nañu daje tey li tax ma ne nañu daje tey point de départ la ci la reprise des activités politiques ñu yaakaaroon ni léegi poste premier ministre tax na Sonko amatul jot politique ba ñu ne ci <laughs> comme on dit quand le chat ñu ne ci di cëppi cëppi dañu xam ni activité politique yi reprendre te xamante nañu nag waaw euh, xamante nañu bu baax bëgguma ci wax lu ëpp waaye nañu xam ni activité politique yi reprendre te daje bi mooy départ bi yeneen composante yépp nitu diine yi nga xam ne ñëpp gis nañ seen taxawaay ci télé yi ci rajo yi demee noonu bu soobee yàlla bu ñu jógee ci màggal gi naa leen dalal ñoom sax defe naa du laay def ci ak ñoom parce que artistes yi ñemewu ma seen i mooy bañ dépense bi xaw a bëri euh, jeunesse bi yenn organisation de jeunesse yenn organisation féminine en tout cas toutes les composantes loolu bokkul ak les activités les actions sur le terrain parce que man nag tëju ci bureau yi taal clim man xaw ma ko de waaw lañ ci war a def nag dañ ko def jaadu woon na ci lii ñu traversé ñu ne la réew a ngi nii ak réew ni mu toll nga war koo jël ci condition xam ne néew na Sénégalais yi xam li xew waaye dañ ko xam ci fan yu néew soreetul teel a a xulo jaru ko woon jaru ko woon léegi mbir yëpp leer bu soobee yàlla mais jaadu woon na ci conditions yi ñu jël un de temps ci gannaaw son excellence le président Bassirou Diomaye Faye daal di sëgg tuuti ci liggéeyu état bi parce que nit ci jamono ju ne da nga war a xam lan mooy farata lan mooy sunna lan mooy dal bu farata jotee nga bokk fi dem def sunna xamal ni eh, amoo dara wala amoo lu bari ba ñu sénégalais yi dénkee réew mi la ñuy xaar ci ñun tey di ko xaar ci ñun dans deux ans di ko xaar ci ñun dans cinq ans mooy lan la ñu def ci réew mi loolu la sénégalais yi di xaar ci ñun te sénégalais yi nag ëpp nañu Pastef lañu ñu ci pouvoir la ciy sympathisant moo ci ëpp li ciy partisan parce que noonu la politique di doxe dans tout les pays du monde bëri na ay sénégalais yoo xam ne faruñu ci benn parti jëluñu carte membre benn parti waaye dañuy seet d'une élection à une autre ñu seet lan moo leen doy li ëpp ci ñu voté pour ñun en 2024 boo moytul 2029 keneen la ñu voté loon 2019 keneen la ñu voté loon 2017 keneen la ñu voté donc il faut pas qu'on trompe de perception nañu xam ni lañ ñu dénk ëpp na parti politique donc suñ dénkoon càmbaraguñu réew mi defaguñu état des lieux bi xamuñu lu baax ak lu bon xamuñu yàqu bi fan la toll ñu bàyyi loolu yëpp nekk ci mbirum parti politique defe naa Sénégalais yi nañ ñu gaaw a jëppi moo tax dégg nañ ñu ne ndax par essence Sénégalais moo impatient ci ñaari weer ñetti weer nit mun a taxaw ne déggatuma gaay gisatuma gaay yi won nañ ñu gannaaw waa gaay yi ci lan la ñu nekkoon ña ngay xëy fajar ba deux heures du matin nekk ci li tax Sénégalais yi wóoluñu ci loolu la ñu nekkoon. loolu doo ko fi bàyyi naan maa ngi accordé ay audience à militant suba ngoon bëgg lu neex militants yi du tax ñu def ko ndax nag bu ñu fàtte suñu contrat dans le parti politique mooy on a toujours été très clair avec les militants chaque chose en son temps kon jaadu woon na ci weer yooyu weesu te jeexagul sax ñu sëgg ci loolu yàlla may nañu ñu liggéey ci lu ama am solo dégg naa ñeen ñi naan amuñu programme ils ont vendu un rêve aux Sénégalais <laughs> dinañu gis ci fan yi ci ñetti temps nag ndax nun lu ñu mus a def dañ ko teg ci stratégie suñ leen poussé les benn te noonu la mus a doxee xanaa léeg-léeg nit ñee xaw a gàtt souvenir rek waaye nañu doxalee ba egsi ci élection ba yàlla jox ñu ko rek war ñu xam ni ñun duñu ay como te dañuy liggéey teg ko ci temps teg ko ci stratégie te noonu la ñuy yoree état bi moo tax ñu ngi ci temps évaluation état des te bu ñu sottee ba ne Sénégalais yi lii lii fi ne ragal naa am na ñoo xam dootuñu génn ci réew mi de dootuñu jox ci mbedd mi. moo tax teel a wax ji jaru ko wala dañoo sentir ni mu ngay ñëw ñu gaawantu njëkkante télé yi takk seeni rajo waaye jaru ko dinañu wax sénégalais yi fait chiffre date bu nañ loolu benn temps la am na yeneen ñaari temps yu ci tegu loo xam ne je ne vais pas vendre la mèche waaye lépp ci semaine yi rek la ci semaine yi rek ma ko waxee nag xam naa xam naa ni am na am na ñu dul nelaw tey ndax xam nga man yàlla may na ma lu tuuti sama diggante gaay duma leen déglu duma leen seetaan toppatoo ma lu ñuy def waaye defe naa suñu xëyee soo ba goon jot dégg naa sax samay ñàngal la ñuy wax léegi ma ne ah gars yi kon tiit nañu ñàngal soo ko ma leen dese <laughs> kon lépp dañ koy teg ci yoon ak ci temps parce que nag dañu xam suñu responsabilité de dañu xam suñu responsabilité gis nga fii nii waxal ma kii mu ñëw ubbil ma bureau bi bureau bi ci gannaaw gis nga fii li ma bëgg a dalal xelu militant yi mooy kenn gënuñoo xam lan mooy projet bi ndax ñoo ko togg ñoo ko sumb ñoo ko bind kon kenn gënuñu koo xam muy benn ñaareel bi kenn gënuñoo xam le sens de notre engagement kenn lay yàq projet bi mun na jóge ci ñëpp ñëpp ba mu des ñun ma dalal nit ñi ñu ànd ak tey ak dal ndax xam nañ fi ñu jëm leer na nañ te dinañ fa yegg bu soobee yàlla kon responsabilité bi ñu am ñun xam nañ ko te li ci gën a néew waaye moo ci li ci gën a fort en même temps mooy ay ndaw ay ndaw joxe nañ seen bakkan pour que Sénégal changé dama xamul ndax nit ñi comprendre nañu sensu loolu su ma déggee ñu toog fii di wax ay waxu matériel ay waxu post ay waxu dama naan nit ñi est-ce que comprendre nañ ils n'ont pas compris man amul jour bu may xëy te sama xel du dem ci loolu amul jour bu ma tëdd guddi te sama xel newul ci loolu amut kon li ñuy def dimension bi mu nekk du dimension bu ñu xam ci politique dimension bi ñu xam ci politique fii Sénégal ñu newuñu ci dimension boobu président Diomaye chaque jour su dara amee wala ñu gis benn affaire affaire da koy naqari ci yàq-yàq yu ñu yàq réew mi da koy naqari et chaque fois la même phrase la may la may wax mu ne ma gis nga lii ñun mënuñu ko fàtte ça ñii ñan ñoo ci am 30 ans amul daanaka lan moo tax ñu dem c'était pour que le Sénégal change président Diomaye loolu la may chaque fois mu ne ma est-ce que xam nga ni ay nit dee nañu nit ñi dañoo fàtte ni ay nit dee nañu pour réew mi changer dañu fàtte loolu moo tax ñun mënuñu ne fii gis nga les avantages yi ànd ak pouvoir yàlla métim xam ne ni man gisuma ko parce que amul solo bu ñu tombé woon ci loolu rek on a trahi ces te bu boobaa nag la ñuy rendre compte suñu borom ah. parce que ban hommage la ñu mën a rendre xale yi mooy ñu ne ci cinq def nañ lii ci Sénégal ci dix ans def nañ lii ci Sénégal soppi coppite bi ñu doon wax ci senegal def nañ ko ba ñu gis ko c'est ça l'enjeu aujourd'hui te ci loolu la ñu nekk subaak ngoon gu guddeeg bëccëg moom il siège au gouvernement xam na li ñu wax te duñ ci am lu ñuy lam-laame El Malick Ndiaye bi il est ministre dans mon gouvernement bu ma xëyoon ñu ne ma jox nañ ko deux cent mille francs mu jël jour boobu il sera pas ministre dans le bu ko jëlee midi midi et demi il ne sera plus ministre loolu amuñu ci luñ ciy sédd ak luñ ciy calculer ba tax la ñuy woo ñëpp mooy li ma démarré léegi liggéey baa ngi doog a door challenge bi dëgg mi ngi doog a commencé mu interpeller chaque d'entre nous yéen en tant que artiste ndax seen mission dafa jeex keroog bu ñu nee fal nañu président Bassirou Diomaye Faye ngeen dem aj seeni kooraane ñu xaar prochaine élection wala kenn ku ne ci yéen projet bi mu gëmoon ba tax mu tëju fenk li muy fenk woy ko day ñëw ànd ak projet boobu accompagner ko kenn ku nekk nag ci domaine ba nga mëne loolu mooy questionnement bi il faut ñun ñëpp ñu nekk ci beneen niveau ci conception suñu relation ak la chose publique mais suñu conception suñu responsabilité ci projet bi kenn ku nekk la taxoon nga dugg ci gëm ko ba am loo ci def tey nga war a gën a takku nag ndax bu doxul suñu échec la ñun ñëpp ah. dañ ma ci tudd nañ ci tudd président Diomaye waaye dañ ne ah yow de yaa fi wóyoon tàgg gars yi ne suñ leen joxee réew mi gis nga fi mu mujj kenn ku ne suñu responsabilité la moo tax tey la ñu war a gën a takku ci naka wax naa leen ni ay temps la euh, gars yi dañuy wax état de grace état de grâce c'est pour les faiblards ñun soxlawuñu état de grâce état de grace pour les faiblards ñun ba ñuy nekk parti politique opposition amuñu état de grâce dañoo judd rek ñu daal suñu kaw ñun ñooy parti boo xam ne su doon xale la dafa judd rek dox jàngul toog jàngul raam parti bu dëgg du 2014 2015 ñu daal sa kaw 2016 ñu dàq la sa liggéey noonu noonu noonu ba fi mujj ñun soxlawuñu état de grâce ñuy wax ay état de grâce état de grâce va bientôt se terminer déedéet na bar kuy opposé wu rek génnal ñun soxlawuñu état de grâce loolu mbirum mbirum tapet la <laughs> ñun xamuñu loolu ñun cooki la ñu xam dans le bon sens du terme nag du ñu tooñ kenn kenn mësuñoo gis ñu tooñ waaye kuñu tooñ fekkuñu fi loolu la ñu xam te réew mi noonu lañ koy yore mooy ku bëgg a opposé wu bu mënoon nga commencé sax balaa prestation de serment président Diomaye ndax ñoom seeni opposition yëngaluñu opposition saaga meeg egg eh, yu dem ñun yëngaluñu opposition boo xam suba ba ngoon jot sa yaakaar yëpp mooy kañ la problème di am diggante Diomaye ak Sonko ñooñu yëngaluñu ñun dañuy tëdd nelaw de ces deux opposition boo xam ne ña ñay ñay ténor yi kenn ñemewu cee génn wax waaye dangay dem fay nit ne ko jógal wax ñooñu nag ñooy les agneaux di sacrifice ndax ñi ñuy naan ñi ñuy fay naan leen jóg leen wax lañ leen xamee mooy xaste ak saaga ah, nañu xaste nañu saaga et puis dama jàpp ni ñenn ñi dañoo dañoo gëm a <laughs> dañoo gëm agul nekkatu nekk ñoom nekkatuñu pouvoir quoi topp ci nit di saaga di saaga di saaga mu muñ ba ñëw ñu jox ko doole nga ne damay saaga ah aywa te kuñ ci ne ñuuj nag doo gis gaa yi avocat doo ko gis gars yi mënuñoo xeex de ñii li ma ne benn lacrymogène la gaa yi xaaj ñeent sànni leen ñu soj ñoom ñëpp mbir maa ngi nii nun amuñu problème na métti rek mais état de droit la ñu wax ku ñëw ne d'accord mag agriculture bi niñ ko doxalee wala napp gi wala càmm gi wala jàpp naa Ousmane Sonko avec de preuves jël na xaalisu réew mi c'est ton plein droit loolu amul benn problème mais xëy rek topp ci ay nit nekk ci seen der nekk seen vie privée dugg seen njaboot lu bon lu ne nga wax ko waxoon naa leen ko grand théâtre dégguñu am nañu mos nañu continuer noonu rek loolu dina jeex ci réew mi de wala dem fay nit ne ko bindal ma El Malick laa bëgg nga xasal ma ko wala nga détruire ko loolu dina jeex ci réew mi parce que dafa dul yoon nañu waxante dëgg tey foo ñu comprendre yi nag bañ ko doon def mu yomb ci ñoom ndax ñoo yoroon lenge ngay am ñu leen boot ne leen defal loolu soppiku na kenn du fi instrumentaliser kenn mais dinañu def politique opposé wu dans le respect mutuel loolu moom dina am débat de ku ci wóolu sax xam-xam man je suis prêt à tenir des débats avec tout le monde débat sur les politiques publiques sur l'État sur nos ressources naturelles sur nos finances publiques sur leneen ak leneen ko bëgg ñu débat loolu amul problème mais yenn yi moom dootul mun a am ci réew mi ba tax nag ñun soxlawuñu état de grace ndax xam nañ lañ yor xam nañ fiñ ñu jëm tekk tekkaaral bii ngeen gisoon tekkiwul faiblesse tekkiwul dara ci étape yi di ñëw nag yu bëri dina ci am te composante bu nekk il faut mu jouer référentiel bu bees bi nga xam ne moom la ñuy tab togg muy le nu le nouveau référentiel des politiques publiques ndax ps e, ñun mosuñoo d'accord ak PSE yàgg koo critiquer PSE pare nañu Sénégal pare na ak PSE ñu ngi naan gars yi amuñu programme ñoom lañ doon liggéey ci ñaari at ñun dañ koo liggéey ci juróomi weer ndax entre phase dama bëgg yooyu mu leer parce que dañuy essayer intoxiquer Sénégalais yi avec une mauvaise foi extraordinaire réew moo dem ci àdduna candidats yi dañuy ñëw présenter un programme mais bu yàlla defee nga gagné programme boobu da nga koy opérationnaliser programme bi nga def dafa génne les grands axes de ta vision mais boo demee ba yor léegi réew mi te ngay opérationnaliser nag def beneen document bu gën a détaillé boo xam ne day méngoog les données les chiffres que tu ne pouvais pas avoir ba ngay nekk ci opposition mais bu collé ak sa programme yéen a ngi fàttali ko président Abdoulaye Wade bi ñu ko falee programme soppi la andi woon il lui a fallu combien d'années pour génnee la stratégie de croissance accélérée trois ou quatre ans je ne ki fi jóge président Macky Sall yoonu yokkute lañ ko fale woon il a fallu deux ans pour mu génne PSE bi te dafa dem fay trois milliards un cabinet étranger mu defaral ko ko ñun fay ñu dërëm avec l' local en quatre mois on on va vous sortir un document d' ñu ne ci télé yeeg rajo yi le projet n'existe pas léppi léppi léppi léppi bu ñu génnee document bi dans les prochains ci anam boo xam ne kenn ku ne ci yéen bu ko gisee dina xam ndax lii dina changer Sénégal wala du ko changer référentiel boobu nag bu ñu ko génnee la liggéey bi di lancé wu dëgg-dëgg te liggéey boobu dafa laaj vulgarisation dafa laaj communication dafa laaj sensibilisation ñu koy def nag ak toutes les composantes civisme service civique citoyenneté communication il un bureau spécialement à la primature pour ça ak yeneen ak yeneen kon kan moo gën a yomb kan moo gën a euh, am facilité ci tasaare message wala vulgariser qu'un artiste amul kon seen mission jeexagul mu ngi doog a commencé et c'est pourquoi et un eh, oh, artiste de qualité parce que ñi ma fi gis ñëpp am nañu niveau téye document bi liir ko comprendre ko jukki ci benn fànn ne lii bëgg naa ci waxtaan ak telle catégorie de la société ñi fi nekk ñëpp ñëpp waxuma waxu transport <laughs> donc noonu la ñuy xaar ci suñu nee dañoo bëgg qu'on continue ensemble l'aventure l'aventure ne s'est pas arrêtée le 24 mars pour les uns elle ne s'arrêtera pas d'ici des décennies bu soobee yàlla il faut qu'on continue ensemble cette aventure te kenn ku nekk ñu xool nuñ ko ci impliqué nu mu ciy gisee boppam doon un acteur de transformation structurelle bi ñu wax fii ci réew mi doon joxe sa participation wala continuer di joxe sa participation c'est pourquoi euh, mënuñu am une vision très réductrice ñi fi waroon teew war nañoo ëpp ndax am na d'autres types d'artistes wax naa ko El Malick yaa naa ñoo xam ne par la peinture ils ont beaucoup travaillé à vulgariser ce qu'on est en de faire am na ñoo xam ne par d'autres moyens et on va continuer à élargir keroog bi may installer le comité pour euh, célébration Thiaroye 44 nga xam ne c'est un c'est une obligation mémorielle pour mu nous mënuñu continuer di subir l'histoire même quand elle nous a été imposée par le sang ba pare du ñu rétablir la vérité historique ba suñuy doom ak suñuy sët xam li fi xewoon mun a jël matuwaay pour mu bañ a amati mais biñ ciy wax posé nañu débat boobu le rôle des artistes ci loolu le rôle des artistes tey artistes yi fi nekk peut-être ñoom la ñu taamu parce que je voulais à si sama tur ak ci turu président Diomaye bu remercier mais li may wax nii ëmb na artistes yëpp nag ça n'exclut aucun artiste aucun artiste même ku ne man je suis je ne la politique politique intéressé wu ma il faut que ñu ñu jàng séparer ñaar mun nga bañ a politique mais gis ni lii baax na ci réew mi en tant que citoyen nga ne lii dama ciy dugal sama loxo loolu bokkul ak politique jëndoo carte de membre demoo ci meeting àndoo ak mais lii état bi na koo bëgg a def par exemple ci mbay mi fexe ba remobiliser sénégalais autour de l' agriculture. nga ne man artiste la te am naa ñu may déglu am naa sama public bëgg naa jàpp ci lii parce que lii su doxee réew mi naat ça ça n'a pas de rapport avec la politique c'est pas un engagement politique mais les gens font souvent lamalgam noonu nga xam ne imam biy def prêche am wala prêtre bi def ser moom jàpp na ni lii baax na suñ ko defee mu ne tey dinaa xutba ci retour à l'agriculture wax ak ndaw ñi mais loolu est-ce pour autant que il est devenu un partisan de Pastef no parce que am na loo xam ne bu doxee ci programme bi Sénégal yëpp la du ñu fi defar hôpital de dernière génération ñu ne waa Pastef rek a fiy faju ñëpp a ciy faju tali yi bu baaxee duñ ne waa Pastef ñoo ciy dugg ñoom kese leneen ak leneen s'il y a de l'emploi les gens les entreprises recrutent indépendamment de la coloration politique moo tax ñun ñëpp suñu préoccupation mu war a doon na réew mi dox kon yeneen phase yaa ngi ñëw débat yi ñuy posé yëpp am na ñu dem ba bëgg jàllale ci bopp nit ñi sax que way on veut les l'éponge impunité et cetera non loolu yëpp am mais lu nekk ak temps rek lu nekk ak temps bi ma recevoir fii les les anciens détenus defe naa bi ñu génnee néew na lu ñu waxate ci mbir mi ndax am na lu ma leen wax ci biir néeg te du ma ko wax ci biti ndax stratégie du lu ñuy wasaare ci mbedd mi mais ay nit su ngeen àndee nga ànd ak nit démb ak barki démb wóolu ko mu doy la ci njiit di def ngay gis bu la nee toogal ànd ak dal toogal nga may ko su toogee nag suñu toogoon un an deux ans gisuñu dara nit ñi mën nañ ne ah ñun de xamatuñu mais quelque semaine jarul yëngatu kon ci gàttal ah gudd na ba pare sax mais solos waxtaan bi entre autres lii la woon te nii ma ko defee génn noonu lañ koy nee def am na yoo xam ne sax damay déplacé wu ci terrain bi cible des quartiers ou des villes dem waxtaan ak nit ñi portage la boo xam ne mënul ñàkk parce que dans notre conception xam ngeen Sénégal lu ko mës a ko fii ñu fi toog kan ci yéen moo mun a génneel ñaari axe PSE plan Sénégal émergent ñaari axe yoo maîtriser nga yow mën a wax fii est-ce que am na même intellectuels yi ñu naan intellectuel lañu très peu connaissent sa document loolu nag mooy erreur gouvernance ku ñu fal nga tëju sa palais tëju say bureau taal say clim woo say expert ñu defar sa document nga ne yaa ngi koy doxal te ñi war a porté document bi xamuñu ko ñi war a porter document bi xamuñu ko ñun suñu nee dañuy defar on va présenter bientôt aux Sénégalais le plan la la vision Sénégal 2050 xam ngeen suñu suñu yitte mooy lan ñu dem ba Sénégalais ki yor taxiem di dawal boo ko laajee ci vision 2050 su xamul lépp it dina la mun a jukkil dara lu jëm ci secteur am peut ne la ah lii de nee nañ dañ koy def te nii lañ ko bëgg a defee te suñ ko defee dina baax parce que kooku bu xamee loolu dina la mën a gunge ku xamul foo jëm mun la gunge donc le portage du projet la réalisation la réussite va dépendre ci niveau appropriation populaire bi document bu ñu ko génnee sénégalais war nañu xam ñii fan lañu jëm fan la ñu bëgg a yóbbu dans cinq ans dans dix ans dans quinze ans dans vingt ans loolu il faut que sénégalais xam ko c'est extrêmement important ça conditionne la conduite du changement et la réussite dans la réalisation kon loolu du liggéey bu ndaw artistes yi am nañ ci cër bu ñu paree yëpp dañuy def ay atelier atelier dem tëju quelques jour quelque part ñu ne tey artistes yi la ñu ñëw génne programme bi experts yi def exposé nit ñi poser seen question ngeen comprendre lii lan la bu ngeen koy restituer dina yomb noonu lañ koy defee ak beneen segment beneen segment beneen segment kon ñun xam nañ fi ñu jëm te dama koy wax toujours gannaaw yàlla gannaaw yàlla gisuma lu ñu mën a tere réussir incha allah ndax réew boo amee yéene ci réew mi bëgg réew mi jub ak jubal loxo yi set vision bi leer programme bi dëgër kon delluwaat gërëm leen bu baax ne nag dama inversé affaire bi parce que bi may ñëw dama damay ubbi rek sànni ci débat bi ne leen kenn ku ne dama bëgg ma ngeen wax ma naka ngeen gisee affaire bi c'était pour tester un peu les sensibilités voir aussi le niveau de compréhension ak l'analyse que les gens se de la situation euh, fi ñu toll nii mais suñu commencé rek taxaw bi day métti euh, teewul dinañu delloo kàddu gi déglu leen ci seeni préoccupation seen analyse aussi am na solo seen euh, gis-gis ci mbir mi ak seeni i suggestion seen recommandation parce que yéen a ngi nekk en contact ak ay nit yoo xam ne man nekkuma ak ñoom en contact président boo jam Diomaye nekkul ak ñoom en contact te loolu dafa am solo aussi ci liggéey bi merci beaucoup kon ma bàyyi El ah monsieur Kamano monsieur Kamano vous comprenez wolof apparemment <laughs> bon en résumé je oui mais je vais faire le résumé pour vous en cas je me réjouis de vous voir ici euh, euh ça ça nous dans notre perception panafricaniste la Guinée le Sénégal la Côte d'Ivoire le Mali Burkina nous sommes les Nous devons aujourd'hui prendre la hauteur par rapport aux enjeux qui nous interpellent. Euh, nous, souvent, nous tombons, nous retombons dans les mêmes pièges euh, qui, in fine, ne concourent qu'à une chose, diviser encore les Africains plus qu'ils ne Sur des détails, tel a dit ceci, tel a fait cela, nous ne sommes plus panafricains, nous ne sommes plus ceci. Vraiment, on doit dépasser cette étape-là. C'est pourquoi je suis très content de vous voir ici. Et en résumé, ce que j'ai voulu expliquer, j'ai tenu à rencontrer une petite poignée d'artistes euh, sélectionnés par rapport à leur engagement à nos côtés durant les moments où ça a été extrêmement difficile, extrêmement dur. Et ils ont été là. Et par leur production artistique, euh, ils ont donné quand même une certaine portée au message. Nous savons tous qu'il n'y a pas meilleur moyen de véhiculer un message que l'art dans toute ses formes. Donc c'est pourquoi cette réunion marque en réalité mon, moi dirige encore, euh, la reprise des activités politiques. L'erreur qu'il ne faut pas faire pour l'acteur politique, c'est qu'une fois élu, on se coupe de tout. Pendant quatre mois, on a été obligé effectivement de faire une retraite stratégique pour nous pencher sur l'état des lieux qu'il fallait faire quand vous venez d'hériter d'un pays. Il faire l'état des lieux et de manière très sérieuse. Mais cela n'a jamais signifié pour nous une volonté de nous couper de ce qui, ce qui fait notre essence, c'est-à-dire un lien particulier que nous avons avec nos bases, mais un lien particulier que nous avons avec la majorité du peuple sénégalais. Et nous allons reprendre ces activités. Cette activité Cette rencontre d'aujourd'hui était une première simplement et j'ai voulu le faire avec les artistes. Mais au-delà des remerciements et des encouragements, c'est leur dire que la mission est loin d'être terminée et que c'est maintenant qu'elle commence justement. Que nous allons dans les prochains jours euh, présenter le nouveau référentiel des politiques publiques qui doit se scinder en plusieurs étapes, une vision sur 25 ans, mais des déclinaisons quinquennales et décennales. Et nous voulons cette fois-ci que cette vision, ces programmes ne soient pas l'apanage de quelques élites enfermées dans leur bureau. Il faut que ce soit le plus vulgarisé possible. Il faut que toutes les masses puissent s'approprier ce référentiel pour pouvoir accompagner le mouvement. Et c'est pourquoi nous considérons que les artistes que vous êtes doivent continuer à avoir cet impact par leur production, prendre le temps de s'approprier eux-mêmes euh, le document dans ses grands axes, mais pouvoir par, par leur production nous aider à vulgariser et à continuer à embarquer le maximum de Sénégalais, à faire bloc derrière le régime qu'ils sont choisis, derrière le président qu'ils ont élu, de manière écrasante et dès le premier tour, ce qui est une première au Sénégal pour un opposant, et c'est assez symptomatique de l'espoir que les Sénégalais ont placé en nous. Derrière le gouvernement dont j'ai l'honneur d'être à la tête, derrière le mouvement qui va être porté par l'État, mais qui n'a d'autres préoccupations, à la limite d'autres obs obsessions, que de transformer structurellement et qualitativement ce pays pour que les Sénégalais puissent avoir les mêmes pour, pour satisfaire les mêmes aspirations que tous les pays qu'on envie aujourd'hui et qui justifie que nos jeunes continuent à prendre les pirogues pour essayer de, de, rejoindre ces pays. Et nous faisons ça avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de passion, en souvenir de tous ces gens qui ont perdu leur vie, qui ont perdu euh, leur santé, qui ont perdu leur travail, dont les foyers ont pu éclater à cause de leur engagement, au nom de tous ces gens-là, nous n'avons d'autre choix que de réussir. Et je puis garantir, je puis rassurer les Sénégalais que s'il plaît à Dieu, nous allons réussir cette mission. En tout cas, vous êtes invités à, continuer également à nous accompagner dans, dans ce travail, au même titre que tous les autres artistes. Et je terminerai par dire que, effectivement, ces artistes qui sont là ont été triés par rapport à leur engagement à un moment bien précis, mais le message est plus large et s'adresse à tous les artistes du Sénégal, de l'Afrique même, que nous leur tendons la main dans le sens bien compris de l'engagement patriotique, du don de soi pour la patrie, pour qu'ensemble nous puissions enfin euh, changer les choses profondément, qualitativement et structurellement. Merci. que fait la distribution. Je pense qu'on va laisser à chaque artiste au moins deux minutes pour une euh, euh, petite prise de parole ou une réaction en tout cas. Euh, donc en tout, en principe, on a 14 artistes, plus les accompagnants. Ça peut nous faire une trentaine de minutes avant de clore le débat. Euh, je vais commencer peut-être par Madame C. qui était euh, déjà choisi en tout cas pour parler au nom des femmes, mais on va faire le tour. ko première fois ma yegg ci seenu defe naa collecture meeting bi bi ma ko nuyoo loolu la ma njëkk a wax kon loolu mbégte la di sama mbokk artistes yëpp di wax maa ngi leen di nuyu ma cité ci tuuti rek ku mel ni Mortala moom tamit sama ami d'enfant bu boroom kër la kilifa maa ngi leen nuyu bu baax Pape Birahim sama rakk yi ci toog yëpp yuusu am naa mbégte bu baax tey ñu teew fii kii ma àndal nag moom mooy sama kilifa damay wax en tant que artiste mais nit ku nekk sa boroom kër nga am ca vingt ans ñu ngi ànd fu ma mës dem rek maa ngi moomay ànd bari na lu ñu recevoir ca bu ci nekk ñooy ànd kon tey bu ma premier ministre ma bokk ci artistes bokkoon nag ci ñi ko gëm dama ci jàpp tuuti rek bi affaire bi amee fi mu toll sama borom kër moom ma woo mu ni ma ñu taal oto bi génn ñu dem lu bari bari sax mu ni ma yaay wax ni Sonko da ngeen a dëkk li ma mën a wax ci ay maamam néew na Sénégal ci artiste bu ko mën a wax ci ay maamam yaayam ñi ko jur ba ci maamam dama ko xam mais woyowu moon foofu mu ne ma nañ demee studio ma def frais di studio yi fay la yow woykat bi sax nga woyal ma sama waa ji di waral man sama woy ci sama borom kër la jógee parce que boobu nga engagé wu diis na donte artiste nga mais di nga sóoraale mais moom daf ni ma noonoo non nan dem studio ma fay studio fay musicien fay la yow artiste bi sax nga woyal ma parce que foofu rek la ngëm nga moom toll woon donc moo ko defee tamit am ci ay retour yu bëri fii Sénégal bokk naa ci artistes yi ëpp lu ñuy génn def naa 17 pays depuis 2006 maa ngi nekk ci showbiz 17 pays def naa ko dañuy nekk suñu coin di liggéey mais bi ma wooyee ci projet bi retour yi ma ci am man ak yàlla rek noo ko xam ak sama borom kër yenn saa yi ma dem Amérique sax def sama programme ba pare nit woo ma ndax jëmmam yu ci mel ni Columbus bëri na ay Boston New Jersey damay dem or sama liggéey mais su ma paree ci sama liggéey juste rek da gis fu nekk la ma nit di invité ñuy Daba ñëw ñoo bokk Pastef foog nga ñëw añ seeg man kaay ma defal la bon départ donc def nañu mbir mais laata jataay bii mbir moom mi ngi doon fay waaw loolu sant la bu baax sax 17 pays yoo xamante ne waxatuma Sénégal ay sama dama koy yóbbu jor fu ma toll samay passeport yu jeex donc du lu du doon lu basé wu ci nit mais booy def dañu toog fii rek mu ni ma léegi def te yàlla tax dina fay moom daf ko mës gëm dafa am bés boobu dafa toog ñu toj verre bi mu xëy ni ma du ma tëdd tey ci journée bi te gisuma sama président dem ba gisanteeg moom ñëwanteeg moom ma ne ko sa goro la donc loolu ngëm-ngëm la mais bu yooyu yëpp weesoo nag ma ñëw ci li nga xamante ni moom mooy suñu liggéey dafa bëri nguur bu fi jaar te respecté wu ñu dëgg-dëgg culture te ñun ñi nga xamante ni ñu ngi yëngu ci culture di génn di porter drapo bi fu nekk dañuy gis suñu yéen yeneen dëkk yi ni ñu gën a avancé ci wàllum culture bari na dama koy wax Mor ma ni ko fekk dañu dem Washington ñu gis defe naa David la di fa joué ñu dem ba teg porte yi ni kenn mënatul dugg mais pourquoi pas ñun Sénégal mënuñu am lii déjà bu ñu wut passe bu ñu wut visa dafay metti dafay metti trop ci artiste yëpp nag mais pour mu déposer visa ñu jox ko ko ci ni mu waree lu metti la lu metti la dañuy am toujours problème yooyu mais loolu yow muy génn dangay xam ni culture Sénégal dafa des lu bari dañu am ay woykat dañu am ay ndaanaan yu mag ci su nekk yoo xamante ni dañ leen di xam mais tout le temps dañuy problème yu bëri yoo xamante ne ay góor lañu di ko mën wax fenn en ñun bëgg nañ la fonk nañ la gis nañ sa taxawaay gis nañ sa njàmbaar mën a fal maire mën a fal ay directeur mën a fal président kooku yàkkam dinam xam mais ñun ñi nga xamante ne bëgg nañ la ci gëm nañ la te gis nañ bu baax xeex ak sa bëgg Sénégal ak sa naw sénégalais bi fi mu nekk nii ñu nee nii dañu am faiblesse ñun ñi la gëm duñ ko comprendre parce que boo xasee ba